Euh, moom dafa génn daal di weddi lool ba mu set wecc mais euh, pare aussi pour porter plainte ki nga xam ne moom mooy Juan Branco pour diffamation waaw loolu c'est son droit le plus absolu ah tey bon <coughs> ci loolu itam lañ ko doon lañ ko doon lañ ko lañ koy xaare comme comme ñeneen ñi rek parce que Euh, mënul génn naan dañ ko jiñ xëy na peut moom moo ko def. Mhm. Euh, génn dem porté ji plainte itam nag loolu en tout cas na dem rek euh, seetali boppam ci kanamu tribunaux yi wala mu yóbbu preuve ci en tout cas weddi li nga xamante ni si nii moom lañ koy topp te ko mais façon li nga xam ni moo am moom am na mooy. Mhm. ay kilifa ci gouvernement bi ñoom reconnaître nañu que ni. Mhm. ay nervi am na. am na ñoo xam ni ñax ñu ngi daan naan bu xama ñan amee xama seen lan war nañoo nangu ñeneen ñi tam. Euh, ah, voilà ay bu ñuy amee xalaat TV ñii mën nañu am Anita Anita TV ak ñii ay xamalan euh, maanaam ay wax yoo xam ni dañuy am reconnaissance en tout cas ci la présence des nervis yi nga xam ni ñu ngi koy gis. ci ñoom nangu nañ am na. Euh, ci ci mbedd yi kon mhm. tey. lenn rek moom moo ci am. Mhm. puisque ñoom nangu na ni nervi am na. nervi nag su amee il faut ñu am ñu leen recruter. effectivement loolu moom c'est sur ça mhm. c'est sur kon tey nervi yooyu noonu. ñoom dañu amee responsabilité ñi leen recruter itam dañu amee responsabilité euh, parce que mhm. euh, li nga xam ne ñu ngi koy teg ci kaw askan bi ay oto yoo xam ni oto yoo xam ne ay nervi la ñuy fi sol sëf ba fees mhm. di daw di fiir ay nit ba ñooñu di jaar di ñàkk seen bakkan mhm. mais loolu ku ci waxul tey ak ku ci mënta wax xawma en tout cas ci ci ci lan nga war a wax kon euh, fi mu ne nii li nga xam ne moom moo ci am rek mooy xam naa ni Euh, panique bi fi mu ne nii daal yaatu na. Mhm. trop trop trop kenn ku ci nekk nag. Mhm. Euh, yaa ngi jéem a défendre di jéem a défendre sa bopp. mais fi mu ne nii affaire yi. Mhm. ay taxaw rek naan nangam nangam di layam layam yi loolu génnewu la ci mbir yi. da ngay dem fa nga xam ni fa lañ la woolu. foofu nga mën a seeti liggéey sa bopp te foofu nag ay waxi kasaw kasaw ak i layam layam. ay preuve yu set wecc yu leer nañ nga fa mën a yóbbu. yuy firndeel que ni effectivement man li nga xam ni ñu ngi ma koy jiiñ dara du ci dëgg parce que tey bu ñu demee parce que xoolal ñu ngi mettre la vie des Sénégalais des jeunes yoo xam ne en danger ci loo xam ni jaru ko xam nga ñoo xam ne bu ñu naan ay journée quinze mille lañ leen mais journée quinze mille boo mhm. Mhm. fi faat que ki ñu reyoon Medina mais journée quinze mille quinze mille boo wàccee boo ci boo ci boo ci reeree boo ci reeree mu jeex quinze mille mooy lan ah, quinze mille quinze ëpp quinze mille francs même buñ la fayoon àdduna ngi si biir est war nga taxaw ak sa askan ñoo xam ne say say say mbokk lañ wala quinze mille si yow say dépense quotidien kese kese kese boo ci dépense benn fan mais ñaareelu fan bi boo moytul da nga mottali kon tey ay ay simple quinze mille yooyu noonu warul tax quand même ñoom ñuy nangu ñuy mettre seen vie en danger mais warul tax itam ñoom ñuy jël ay vie yu doomu jàmbur di leen metti en danger parce que tey bu ñu demee ba ay sénégalais def opération rëbb bu néew bi parce que mm-hmm. nag euh, dafa métti trop ay nit day si ay civil comme yow mm-hmm. di jël ay métit di métital ay nit te loo xam ne teguñu ko fenn tey di def ay opération rëbb bu néew bi mais xoolal ñi nga xam ne ñu ngi leen di publier te malheureusement yàlla buñ ci publier koo xamante ni si nga xam ne yoonam nekku ci mm-hmm. euh, te effectivement euh, booy ñi ngi sóoraale lu ni mel tey bu ñu demee way publier ay photo jàmbur naan diw ak diw nervi la diw ak diw dañuy recruter ay nervi tey mhm. ñooñu fu ñu génn seen vie mi nga danger am na ci ñu am ni depuis ñu publier seen photo ba léegi mhm. mais amatuñu fitu di dem ci yenn yenn localité ci ça en fait te mhm. nervi yi nañu xam ne ñoom ñoom dañu muusul rek mais ñoom koñ bi ñu dëkk souvent dañuy dëkk koo xamante ni si ni Ousmane Sonko ci bakkanam la ko teg ñooñu noonu tey ak lu ngeen mënti jege yoo jege yoo maanaam la plupart mën ngay def li ngay def ñoom dañuy no heure bu ñu la xamee soo métu mën nañ la weejee ca duñu ci feeñ kon ñoom fi mu ne nii Sénégal def fi loo xamante ni si nii nit ñi duñu ko xam mënatu la nekk en fait parce que koñ ba nga nekk yow Macky jaral la Macky jaral la ngay dem di accepter di teg yenn métti di ci kaw doomu aadama parce que ab 15000 francs la am na ñoo xam ne Ousmane ko jaral na leen lu ko mm-hmm. ëpp te ñu ngi bokk ak yow koñ ñooñu noonu tey bu affaire yi demee ba nga xam ne yow mii ci yooyu ngay yëngu soo moytu ñoom ñooy dem ci boppam weejee la bu xam xam le ni kii nii ci nangam ak nangam lay dox kon mm-hmm. ñooñu nañu sóoraale loolu nañu bàyyi xel loolu noonu. bu baax a baax lii du continuer te yow da ngay continuer di des ak sa askan. mais c' est ça tey nguur ña ñaata nguur ñoom ñoo fi jaar mais xam nga mhm. nervi yi. Mhm. tey bu ñu demee ba ay nit des personne de gros parce que lan gouvernement bi lii moo tax euh, gouvernement bu liggéeyul ak euh, xëy yu manqué bon. Mhm. parce que ñoom dañ lay xiifal ba nga xiif. ñu lay woo di la. jox cofal part ndànk-ndànk yow nga yaakaar ni yaa rey gaynde alors yàlla xam na ni. Mhm. tey bu fekkonte ni am nga sa ngor téye sa dignité. Mhm. xeex li nga war a xeex ba ñoom ñu liggéey teg réew mi ci yoon. Mhm. amul kenn koo xam ni des na mën a fukki fii sa ngor mais malheureusement tey. ñoom li seen arrangement mooy nit ñi nañu xiif nit ñi bu ñu am parce que heure bu ñu bëggee lu ñu am lu ñu am ci ñoom. bu ñu dikkee génnee 5000 francs wala 10 000 francs yow nga yaakaar ni biir la la jox alors mbir yi demewul noonu. yow da nga yow jeune bi da nga war a yow nga conscient xam ni. Mhm. ki nga xam ne mi ngi lay woo la jox ay 15000 francs yàlla xam na ni bu ñu tegee réew mi ci yoon. Mhm. yow sax mën nga ko jël di ko employé di ko fay parce que li nekk ci yow ci jom mhm. ak. li nga mën a liggéey ak capacité bi ne ci yow xarañteef gi ne ci yow mhm. boo ko jë xaajee ñetti xaaj genn xaaj gi nekkul ci ñoom parce que mhm. ñoom ñëpp ay paresseux la ñu jàng ñu tàyyal nañu li ñu bëgg mooy toog muy dox léegi nag mhm. di jéem a utiliser seen xel ak seen moyen pour di jéem a dox ci kaw nit ñi bëgg leen utiliser loolu ndaw bi ci bopp moo ko war a bañ moo ko wërta nangu man mënu ma toog xam lan laa capable lan laa man te ma gis sama réew xam li fi am suñu ko tegee ci yoon amul ñii lu ma lu ma leen di ñeewe wallahi al azim même ñi nekk bitim réew sax tey bu ñu tukkee ñëw su dikkee génne xaalis man ma wecci leen ko mhm. tey loolu yëpp yow nga xañ ma ko pare bëgg moom ma toppaat si ginnaaw di la dungur di la dungur pour lan ngay jël sama vie di ko mettre en danger te yow boo génnee ñu boole laat benn takk der wala ñetti takk der yoo xam ne ñoom ñoo lay wala nga dem recruter sa ay garde corps yoo xamante ne ñoom mën nañu assurer sa sécurité man à chaque fois sama vie mooy nekk en danger. Mhm. te fii nag fii loo fi sadik sadik ak nit la gën a won ne yat téeméer junni ñi ngi ci réew mi. xëy na rek dañuy toog lenn moom moo mhm. nit ku yeewu conscient. ak ku am jomb-jomb mhm. mais tey loo fi sadik ba sañ ko def sa ay fukki moroom yi ngi ci koñ bi gën la sadik téeméeri junni yoon toog ci kon loolu ñoom dañ ko war a bàyyi xel mhm. ñu xam ni euh, seen ñi ngi dal ci seen kaw di jël ay yat di dóor rek di nangam nangam ñooñu mhm. tey bus bu ñu fayantoo musiba bu musiba bu mag a mag la indi parce que bu ñu leen identifié dem di leen fekk ci seen kër yi loolu euh, c'est catastrophique te mën na jur euh, lu nekk moo tax nañu ko bàyyi xel bu baax a baax ñu bàyyi en tout cas ñu leen utiliser ak ñu leen recruter ci ñi leen di recruter ñoom dañuy dund ci seen kaw. bien sûr nga daal di wax kàddu yu am solo ñu gis ne que ki nga xam ne moom mooy bi Birane fay Euh, nekk ministre auprès du ministre de l'intérieur euh, ñu gis ne que dafa génn daal di démentir kàddu ya nga xam ne euh, Juan Branco yëkkati woon na ko niki démb di xam ne que moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy recruter nervi bi ba instant bi ki nga xam ne moom mooy Juan Branco. effectivement Fatima comme ni nga ko waxee Birame Faye nekk ministre auprès du ministre de l'intérieur mhm. nekk itamit li nga xam mooy directeur général agence de sécurité mhm. de proximité ASP moom nag Juan Branco daf ko nekkoon yow bokk nga ci ñi nga xam ñooy recruter parce que da ngay utiliser sa cabinet. Mm-hmm. Euh, di euh, organiser ay recrutement Euh, ci ay euh, nervi indirect ak indirectement nga ànd ci ak ki nga xam ne mhm. moom mooy Antoine euh, Félix Diome moom nag mhm. loolu la ko daal di xamle mhm. nervi yi ci moom mi ngi wax que ne siège APR la ñuy départ ak li ni maanaam moom daal biram fay moom ki nga xam moom mooy Juan Branco l'avocat français l'avocat d'Ousmane Sonko mi ngi naan ko yow ci ñi nga xam ne ñoom ñooy fay nervi yi ak recruter leen ak dajale leen ak li ni ci ak Antoine Félix Diome yow Birame Faye ci nga nga ne. Mhm. Euh, li ni diffamation la wala daf ko accuser mhm. euh, à tort daf ko accuser loo xam ne amul mhm. euh, droit am la mu dem saisir la justice mhm. bu dee li nga xam ne mu ngi koy wax amul mais man euh, dama koy wax ko ne comme que Juan Branco mi ngi doon wax que ne am na dossier bi parce que mu ngi wax a écrit Juan Branco dans son dossier de 168 pages soumis à la CPI comme que moom am na ay preuves yu tangibles yu firndeel que ne Birame Faye mi ci la daal di bokk parce que am na tant d'autres politiciens yu fi daal di nekk am na tant d'autres APR yi fi nekk moom ñu tudd ko ci euh, bu dee am na ay preuves yu tangible yoo xam yu palpable la mhm. na dem présenter ko la justice ñu xool ba xam fa la wane di bu jëkk ay gëtam mais di accuser mais pas di accuser mais di wax que ne nit ki dafa ma tooñ daf maa tuumal te amoo fenn foo xam ne euh, fa nga koy wékk aussi euh, daf lay gën a dugal mm-hmm. parce que moom am na li nga xam mooy preuve yu firndeel wala yuy montre que ne yow mii ci nga bokk yow yi tamit fexeel laa même chose indi ay preuve pour wan ne ko man ci lii nga ma wax bokkuma ci kon lii ma wax moom moo am mm-hmm. mais li ci mënti am daal mooy que la justice ak CPI euh, cour pénale international du ay mm-hmm. faux justice aussi bu nekk fi Sénégal tamit du ay faux mais lu ci mënti am mooy que ak bu dee tamit au li nga xam moom mooy plainte am am li ni mel mais lu ci mënti am daal mooy Fatima euh, boo demee pour seta sa bopp na yóbbu mais bul dem pour gën a dugal li nga xam moom mooy sa bopp bien sûr parce que moom Birame Faye comme ni ma ko waxee mm-hmm. euh, directeur général euh, l'agence de proximité la mm-hmm. moom tamit la doon en même temps euh, mm-hmm. ministre auprès du ministre de l'intérieur bi nga xam doon na ko xool ne ko da nga sa cabinet di recruter ay nervi loolu na teg ay preuve yu leer nañ yi firnde que ne loolu amul que ne moom li mu wax moo am mais pas li Juan Branco wax amul tamit droit am la aussi mu dem si saisir la justice tant d'autres itamit ñi nga xam ne Juan tudd na leen ku ci jàpp ne euh, yow mi euh, laale nga ci mbir parce que man démb ñi nga xam ne dégg naa leen dégguma kenn ku ci wax ma ne man itamit dinaa porter moom rek laa déggu pour le moment mhm. mu wax que ne dinaa porter plainte te Juan Branco ñi mu tudd bëri na bien sûr kon euh, nañ xaarandi Fatima mhm. yeneen plainte wu ñëw que ne moom itam ñoom itamit dañuy porter Juan Branco mais damay wax rek mooy que mhm. képp koo xam ne pare nga pour porter ji plainte na nga yor ay preuve yoo xam ne doo dem da ngay dem pour setal sa bopp mais pas pour dem mhm. pour dugal sa bopp ak dugalaale ñeneen ñi nga xam ne euh, ñu ngi si ginnaaw aussi parce que mhm. euh, ñi nga xam ne moom mooy Biram Faye su demee su demee si saisir li nga xam moom mooy euh, la justice ak lu mu mënti yóbbu bu dee dafa yóbbu ay preuves yu tangible c' est bon bu dee dafa yóbbu yoo xam ne dafay gën a dugal boom mën Euh, on sait pas ba xam euh, moom mooy recruter ou pas mais l' essentiel mooy que li Juan Branco moom li mu wax. Mhm. nañ xaarandi xool ba xam ana. fan la mbir yi di mujjee ak ba xam bi mu annoncé. Mhm. est ce que dina am dina am li nga xam moom mooy suivi ou pas. bien sûr comme parce que annoncé yomb na mais mu am suivi tamit aussi euh, moom mooy jafe. bien comme ni nga ko waxee mu daal di nekk lu am solo mais est ce que lii nekkul gàcce ci Sénégal wala xëy na nekkul lu ñaaw ci suñu image au niveau international ndax bu ñu demee ba ñun suñu ay kilifa benn avocat français génne. ay preuves Euh, yëkkati ay kàddu ñu dégg na ku ci ne ñu lay cité ci ay euh, ñaawteef yoo xam ne ñiy recruter nervi ñii ci leneen ak leneen est-ce que nekkul gàcce ci suñu réew. voilà gàcce la suñu réew Fatima yàgg na nekk gàcce suñu réew buñ demee ba suñu justice. Mhm. Euh, deful li ko war ba ñuy dem di saisir au niveau international parce que Sénégal. Mhm. musuñu am président boo xam ne suñu mhm. paree wala buñ parewul sax maanaam bu nekkee ci régime ñuy waxtaanee wàllu CPI pour la première fois. man may man ñuy gis ab président. ñu naan dañ koy porter plainte contre crime euh, contre l'humanité mhm. dañ koy def yaak ay ministre am mhm. CPI par ci CPI par la euh, je crois que c'est la première fois léegi nag loolu gàcce la suñu demee ba suñu justice am benn position boo xam ne mhm. euh, ndaw yi réew mi amatuñ kóolute ci moom wala ndaw yi réew mi suñ ko soxlaa duñ ko gis parce que soxla nañ ko mars 2021 euh, ci 14 mois yi malheureusement amul dara loo xam ne euh, teg nañ ko wala jéego yoo xam ne euh, mhm. teg nañ ko pour ne dañoo bëgg leeral mbir moom la suñ mhm. demee ba jéggi leen fa mhm. dem au niveau international kon moo lay ne am na benn image bu ñaaw boo xam ne Sénégal am na ko Aïssata Tall Sall démb moom la doon bëgg a defar ne am nañ justice boo xam ne justice internationale mu ngi jamono ji mbir yi mu ngi en cours mais moom dafa waroon a xalaat ci mars 2021 2021 est-ce que la nga xam ne sénégale bëggoon cour des comptes rapport cour des comptes mu ngi fi mm-hmm. ñeneen ñi nga xam ne épingle lañ ne pourtant mm-hmm. euh, justice bien vrai que ne mm-hmm. rapport cour des comptes amoon na ay dage yi nga xam ne convoqué nañ leen ba ñenn ñi sax ba am na kenn benn euh, société bu ne pare na pour fay euh, milliards yooyu le milliards yi nga xam ne moom lekk na ko ñeneen ñi pour le moment guñ leen boobu ba léegi amul lumière boo xam ne def nañ ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ba ci problème mu nerve yi récemment juin bii ni moor yi nga xam ne am nañ ko ñi 16 23 30 ainsi de suite ak nu mu mënti doon l' essentiel mooy que war nañ cee mën a indi ay euh, leeral comme que nag indiluñ ko ak mhm. ñi nga xam ne dañuy def incitation au crime te pourtant mhm. yoon woowu leen fii ñaata nit ñoo fi taxaw wax que ne dañoo war a rey diw dañoo war a taal diw dañoo war a def lii dañoo war a def lii euh, mais amul lenn loo xam ne euh, yoon teg na ko pour jàpp ñooñu le wala pour teg ñooñu le seen place mhm. ki nga xam ne waxul loo xam ne lu aay la ki nga xam ne dafa wax li xalaatam euh, ci réew mi kooku la ñuy jàpp tëj léegi nag yooyu yëpp nag Fatima boo ko tënkee nag moom danga naan carrément que ne man justice bii di wax dëgg fa neex yàlla mm-hmm. euh, man duma régler sama problème damay dem Euh, au niveau international mhm. ngir moom mën a am li nga xam ne moom laa bëgg kon foofu noonu rek mhm. suñu image yàqu na suñu demee ba mhm. euh, ñun suñu police nationale euh, ñun ñoo ñu war a ñu aar sécuriser ñu suñu demee ba di leen boole maanaam ay nervi ñëw rax leen am benn complicité te amul lenn loo xam ne taxaw nañ ko pour wax ñooñu ne nañ pousse seen côté amul lenn loo xam ne gis nañ parce que suñu demee ba gis ab vidéo police wala kenn koo xam ne sol na tenue police parce que jamono ji moom sol na tenue police policier autant pour moi euh, daal di euh, ñëw jox kenn benn nervi arme mm. vidéo yi ñëpp di ko gis muy viral ci réseaux sociaux yi ak tamit nga gis benn pick-up boo xam ne pour nervi yi la mm-hmm. gis ci ay takk der ñoo xam ne dañoo sol ay tenue parce que mm. ñun dañoo jàpp ne ko sol tenue rek mm-hmm. tenue policier policier nga ñun loolu la jàpp au fait buñ gisee ay nit sol li nga xam mooy tenue policier nekk ci kaw pick-up mhm. ñu gis leen euh, nervi sol ay t-shirt ñoom seen bos euh, nekk ak ñoom am benn complicité bi loolu da xaw a tiit ci sa réew da ngay xaw a tiit ci yow ci réew ni nga xam ni ñu koy doxalee moo tax au niveau international mhm. euh, ñu koy saisir mais nekk na daal loo xam ne baaxul ci image yu Sénégal mhm. parce que xam ne que ne ñun nekkuñ maanaam yoruñu loo xam ne ay jumtukaay yu ba yu yu wóor la yoo xam ne mën nañoo régler suñu dëkk suñu bopp parce que lii war woon sax jéggi frontières yi mais nag malheureusement euh, li fi xew lépp moo war a mu mujjee foofu noonu ca CPI. bien sûr comme ni nga ko waxee ñàkk xëy na am lu ñu doy ci réew mi wala ñàkk xëy na ay njiit yoo xam ne euh, taxawaay ba nga xam ne waroon nañ ko am ci seen ay askan amuñu ko moo tax ñu dem euh, au niveau international. suñu demee ba Fatima doggumal suñu demee ba ay ministre mhm. démb ñu leen tudd ci ay ñoo xam ne ñoom ñooy recruter ay nervi ci ñoo xam ne mhm. dañ leen a jox suñu suñu xaalis dañ leen di fay lépp lu ñu yor nañ jàpp ne xaalisu askan wi moo tax ñu am ko mhm. léegi nag nervi yooyu ñuy fay aussi suñu xaalis dañ leen di fayee mhm. bu ñëwee ba tudd ci ay ministre ñoo xam ne euh, man je man yaakaaru ma woon ne euh, ñoom dana leen mën tudd ci mbir yi ci ay ñaawteef ci ay ñoo xam ne dañuy recruter ay nervi pour lan pour ñu dóor seen ay askan mhm. Aïssata Sall taxaw fële ne manifestant ñoom du ñu loon ci kaw manifestant mhm. loolu noonu c'est un paradoxal te en plus c'est incohérent suñu déggee ab ministre aussi euh, di waxee ni ni mel mhm. ab avocat aussi parce que Aïssata Sall ku ne xam ne ne avocat la ministre ministre la kon kooku noonu suñu nee wax yooyu les kàddu aussi euh, xaw a daal doy waar wax dëgg fa comme ni nga ko waxee mu daal di mm. nekk lu am solo en tout cas non seulement mën nañ jàpp ne que doy na waar mais gàcce la ci Sénégal bu ñu demee ba euh, suñu ay njiit wala xëy na suñu ay kilifa à chaque fois rek euh, na mbir mi di demee wala nañ koy waxee du doon benn ñu ci ëpp da ngay xool ne que euh, la leen wala dañuy bëgg gëmloo Sénégalais yi loo xam ne amul mais heureusement ba nekkatuñu ci logique boobu